bisimilah ba léegi de maa ngi nii ànd ak eh, sëñ bu baax bi fii ci tool yi ah bu ngeen gisee ko de gan li ñuy def nii mooy maanaam dafa am ku nga xamee ne dafa góob ceebam. léegi lii nga xame ni dafa tuuru nii nii nii moom la sëñ bii di dajale. bu ko defee man ko yóbbu réew mi incha allah. bëgg ko faa testé bu dee nii kii na aussi. ah mu baaxee ko waa Sénégal baaxee ko Afrique baaxee ko àdduna bi yëpp. mais lii nii ñu ngi ko gese fii ci dëkk bu tudd Roche Sharon maanaam boo génnee Houston jëm au ci géej gi mi ngi tool rek diggante quarante minutes ba ci waxtu lay toolu diggante mag Houston li ci sëñ bi namm nag mooy yóbbu ko Sénégal testé ko fa. nee ko Samba wax ni. waaw bisimilah waxal directement. waaw li tax may def lii nag sëñ Cheikh Fall dafa daa wax ni. njeexaat jërëjëf taamoo sa tool baay fu mu woomee rek. looloo tax may jël jiw wii bëgg hmm. koo yóbbu Sénégal incha allah testé ko ba xam variété wañ am foofu ak wii ba xam wu ci gën hmm. loolu rek moom lay for nii maa ngi mel ni kuy jeexaat bu dal gerte daal maa ngi jeexaat jeexaat uh-huh. waaw loolu la de <laughs> loolu la baax na jërëjëf Fall <laughs>